bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ñi ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigalul sëriñ bi cheikh mouhamadou muntaxa mi nga xam ne tey moo fi sëriñ Touba di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ba naa yi nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa suñu borom may ko kàttan ak wér ba lépp mottali ko mu kawe jortam ñu dellu si fii di yëkkati kàddu ci ndigalam jëme ko ci mboolem bokk julli yi ci senegal yëpp ak bokki réew mi nga xam ne ñoom la seqal réew mi ak mboolem bokk taalibe yi murid yi nga xam ne ñoom itam la sañ digal sañ leen a tere waxtaan wi nag kàddu yu gàtt lay doon mooy fàttali rek ak laabire sëriñ bi nag ni nga xam ne ne la ko ñëpp xame nekk bi mu fi nekkee sëriñ Touba te sëriñ Touba képp ku fi nekkal mate ko sëkk waxtu ne mu di ko wane ca taxawaayam fa adduna tollu lam ca war a def ak lam ca war a jëf xam na ko dana ko def kon ku am kilifa gu mel noonu waxtu ne war nga koy ñaanal bu baax a baax di fàttali ñëpp it ñu xam ni ñu war a ànd moom ndax ku nekk sa kilifa war nga xam bu baax cër ba mu am nga di ko ko delloo ndax bu ngeen déggee suñu boroom ci wax di wax ci alxuraan dem ba doon jàjji ñu dëkkoon ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam leen wax ne laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi wala tashharu lahu bil qawli ka jahri baadikum li baadin an tahbata amalukum wa antum la tashurun inna allazina yaxudduuna aswaatahum inda rasulillahi ulaika allazina imtaxana allahu qulubuhum littaqwa lahum maxfiratun wa ajrun azim inna allazina yunaaduunaka min waraai alxujuraati aktharuhum laa yaqiluun inna allazina yunaaduunaka min waraai alxujuraati yooju nag day mel ne fii àdduna toll mooy lii fii jamono toll kon suñ digg ak suñ kilifa nañ koy jiitu ndax moom mii kat loolu daa wax ñi fi nekk Sëriñ Tuubaa ñëpp da daa wax ne sama kilifa dama koy bàyyi sama bopp bàyyi ko boppam loolu nag kon kenn mënta àgg fa mu àggoon waaye ñëpp war nañ koy jàng di ko diglu bañ koy jiitu ngir xam ne moom waxtu ne yitteem jëpp ni mu ko waxee léegi rek li ñu fi indi mooy dëddu àdduna ak dëgg mat suñu borom liggéeyal Sëriñ Tuubaa li ci lépp lu ci toppaat rek la waaye loolu mooy wërte fi te loolu xam na ko muy jëmm joo xam ne itam nag saa su xëyee luy defar moo ko fi indi yoon wi nag dafa am nu mu muy loo xam ne lu mu fekk la te noonu itam noonu la fas di ko doxe mooy kilifa yi fa jëkkoon lépp loo xam ne waroon nañ ko def muy masuuliya bu ñu war a jël luñ ci àggare xam nañ fañ ko war a jël ak nañ ko war a defee yoonu murid nag baaxawut li ñuy def ñu di ko wax ci rajo walla ñu di koy ñëpp di ko dégg ndax ñoom li ñuy def dañ koy seeral yàlla ak Sëriñ Tuubaa mi leen fi teg waaye sëriñ bi ci dëkk te eh, képp kuy nekk moom wala nga xam ko mën nga ci seere kon yii xew yëpp lu nit ñi yëg ak lu ñu yëgut lu ci ne fu fuñ ca àgg ndax moom lépp dana agsi ci moom lépp itam yàlla def na da ko accident la diglu xam lu mu ci war a jëli dana ko def am na ci loo xam ne nag bu waxtu wa jotee bu dee lu war a leeral dana agsi ci nit ñi am na ci yoo xam nit ñi duñ ko mën a xam waaye nañ xam ne moom yitteem jëpp weesu jàmm yaa liggéey Sëriñ Tuubaa ñim seqal adduna itam loolu la nekkee ñoom ndax man mii dem mën naa ci seere ndax waxtu wu nekk mu di ma yónni ci ay yitte taalibe yi ak yëkkee yitte bokk yi ak yitte mboolem jullit yi nga xam ne ñoom la seq réew waaye yitte boppam ak soxlas boppam ak lu jëm ci njabootam kenn mosu koo dégg kon moom fam nekk fa la nekk la mu war a def moom ngi koy def lépp loo xam ne jëf ak seen ci itam dana ci jëf jëf ju mat. joo xam ne adduna sépp xam nañ ko kon loolu laay fàttali ba ci weesu yëpp yoo xam ne mu ne su ko tudd loo xam ne lu ci ne lam ca war a def bu dee loo xam ne ku ne ci fitna la war ku ne ci xat-xat wala njàqare mu war laa tàggat moom du ca xaar kenn lu mu ci yëg dana ko def lim ci lijjanti itam buñ toogoon fii di ko lim kenn mënta xam nu mu toll kon loolu mooy li indiwaat lii bi nga xamee ni itam yàlla def na jamono ji yëngu li nga xam ne xew na ci réew mi loolu dogaloo suñu boroom la bi mu amee itam laata kenn di fi ñëw fekk na moom mu tàmbali caa def la mu ci war a def jokkoo ci it ak ki nga xam moom la ci war a mu muy ki jiiti réew mi di président Macky Sall lam ca war a waxante moom wax wax na ci ak moom kon loolu itam eh, jëru tool leeral sax waaye. leeral gi de baax ñi nit ñi xam ne xaarul kenn ci masuule bi mu war def moom itam lam ko cooxoon def na ko na ko ko waxee woon bi nga xamee ne loolu jàll itam yexewaat tam yëpp ñëpp ko bi mu amee itam ci la tànn njabootu boppam ci njiital muy délégation boo xam ne ku ko dégg xam ne mën naa représenter sëriñ bi mën naa représenter yoon wi. ka ci jiitu di Cheikh Mouhamadou Bachir ibnu Serigne Moustapha Bachir mii nga xam ne kàddu yam fa yëkkate adduna sépp maasa ci rafetlu ko ndax ku ko dégg xam ne wax na ngir ki ko yónni séddu ci dara lu may yàlla ak sédd ci sëriñ Touba mi nga xam ne moo tax ñu yónni ko fa muy kàddu yoo xam ne itam matal na sëkk ndax ñëpp ko rafetlu kon moom sëriñ bi nga koy sant ci li nga xam ne séentu woon ko ci moom ba jiital ko ci seen kanam ngeen ànd ko moom doxi li nga xam ne doon na leen ko doxloo ba yàlla def ci lim def yéen ñi ko seqaloon itam tàmbalee ko ci euh, sëriñ Bachirou Mbacké mi nga xam ne doomi Soxna Xadim sëriñ Bachirou la ak euh, bokki bi yi nga xam ne yéen a seq liggéey bi tàmbalee ko ci Mamadou Diop Decroix mi nga xam ne maamam Cheikh Yaba ñëpp xam nañ. lim doonoon ci yoonu murit ca guerre ba ñëpp xam nañ ko kon bu koy sëriñ bi dugalaate ci biir delloo si waat la maître ma Niang dégg ngeen li ko sëriñ bi seere loon adduna sépp dégg nañ ko magum taalibe la ci yëf ci liggéey bi Maxtaar Sourang maamam ma Sourang ñëpp xam nañ lim daj liggéey liggéeyu jumaa ji àndoon ko Cheikh Mouhamadou Moustapha kon ñu xam ne délégation bi sëriñ bi yónnee tànn na ko xool ko kon Cheikh Mahoudou Bachir eh, sëriñ bi mu ngi lay yóbbantewaat cant ak ngërëm yow mi nga xam ne yaa jiite woon délégation bi mu yónni woon di lay yóbbantewaat ci bi mu la yónnee ci ñoom ndax bi nga dellu see ba leeral ko ba nga àggee jot leen kàddu yu sëñ bi wax leen ko ñu nongul la ko nongul gu gaaw goo xam ne teguñ ci lu yàgg dangaa wax rek daaneel ñu nongul la ko waxal ko seen bopp ne bàyyi na li ñu jàppoon sëriñ bi nag nee na loolu xam na ne jàmmi réew mi tax te moo tax mu doon leen ko ñaan kon nag cant rek moo ci war ak ngërëm ngeen xam ne itam loolu ngeen ko defal bàyyi ko ngir jëmmam itam xam na ko kon mu ngi lay yóbbantewaat ci ñëpp nag bàyyiwul kenn ndax xam na ne mbooloo lañ waaye mbooloo mépp cant gi kenn ku ci ne àgg na ci yow ginnaaw loolu itam eh, sëriñ bi. ngir xam ne al fitnatu naimatun laana allahu man ayqasaha fitna yàlla rëbb na ko koy kon nag lépp luy war a indi jàmm wax na ne moom loolo wërtee fa ma ndax moom lu dug defar mooy li nga xam ne war na ko kon in uridu illa al islah mastataatu li jëm ci wàllu doxalinu politique nag loolu moom du cëram la biir la ci def ndax taalibe Sëriñ Tuubaa yi la sañuy digal ñi mu seqal réew mi itam mu sañ leen a kon nag bi nga xamee ne yéen ñëw ngeen wax ko kàddu yi nga xam ne bàyyikoo na ci ñooñu la ci wërtee fa mi def na ko mooy jokkoo na ci ki nga xam ne moo jiit réew mi leeral ko loolu yëgal ko ko ñaan ko ci lam ko ci war a ñaan ba moom itam eh, dégg na ko te incha allahu ni ko ko sëriñ bi ñaanee it gëm nañ noonu la koy nangule kon loolu itam na àdduna adduna sépp xam xëy na ni mu demee tax di su ko leeral waaye loolu sëriñ bi ci la dëkk waaye nag comme waxtu demee na nii baax na it adduna sépp maase ci xam yii fii ni mu jaare ba doxee ba agsi fi kon ak sëriñ bi moom itam mi ngi koy sant ci cër boo nga xam ne jox na ko ci boppam ndax léeg ñuy dégg sëriñ bi di ko sant te nit ñi duñ xam nu mu demee loolu lu mel nii lekk moo koy waral taalibe bu jaaxle ñëw ci sëriñ bi ndax sëñ bi ni ma ko waxee amul yite boppam mosu ko wax soxla yite taalibe yi lam ak yite jullit yi lu mu ko ci wax na bu ca taxawee lam ca war a def kon cant ga da koy war loolu rek mooy li nga xam ne mooy li ko indi sëriñ bi nee na mi ngi sant nag kilifa diine yi nga xam ne ñoom la war a jiital ndax bi nga xamee ne lii am na itam eh, kilifa diine yëpp nag bàyyiwul kenn xam naa bu ma ci tuddee sëriñ Babacar man Mansour mu mën a yóbbaale kilifa diine yi ci des yëpp. waaye ñoo xam ne ñoom itam àndoon na ñoom liggéey bi ndax suñ borom dafa wax ci alxuraan istajibu lillahi wa li rasul iza daakum lima yuhyikum moo tax itam sëriñ Ahmadou Badayu mu Cheikh Mahamadou Fadil moom la fa yónnoon mu ànd ak ñoom liggéey ba lépp ci rafetal ba yàlla def ci lam ci war a def kon nag ci jeexal rek mooy sëriñ bi nee na mi ngi sant jullit yëpp di sant bokk réew mépp di sant bokk taalibe bi yëpp rawatina na ñi dëkk Tuubaa ndax ñoom nañ xam ne tawféex yi dëkk ak Serigne Touba la moo tax aar leen ak sàmm leen da ko war ñoo xam ne Serigne Touba mi dëkkal na ma ko fàttali woon ci waxtaan bu njëkk yi rek. Touba dëkk la boo xam ne Serigne Touba dafa wax ne bi koy sanc yaara ka tax ma ko mooy daw nit ñi ak daw li nekk ci loxo nit kon nit ñëpp maase ci xam ne dëkk bi dëkku daara kon lépp loo xam nit a koy def jëf waxoon ne na nga teewlu Serigne Touba rek. boo teewloo Serigne Touba rek da nga xam ba xam loolu war nga ko defam déet moo tax li mu fi war a digle mi koy digle mi ngi leen di sant nag di leen gërëm ngir xam ne ne taalibi Serigne Touba yi ndigal rek la ñuy lépp lu ñu defee dàkk ndigalam ak bëgg ma tax ñu du ko def ndax fu déggee kàddoom rek lañ ca war def danañ ko ci def ngir xam na ne wa ma huwa salabul ixtiyaari li xusni dannihi bila inkaari lépp lu leen digal xam nañ ne loola mooy li gën ci ñoom kon sëriñ bi ne mi ngi leen sant leen gërëm di ñaan jàmm ci réew mi yàlla mi nga xam ne mooy borom jàmm ni mu ko ñaane woon yàlla eh, sotti jàmm ci biir réew mi neewoon ay réew mi na seenum xel dal waxtu wu ne loolu daa wax ndax bañ amee suñ tubaar lañ am jàmm kon nag lépp luy nuru fitna bu dëgg ma lee it la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon rek na xam ne de aywa du weesu ñoo ko yëkkati ndax neen loolu lu ma leer laa ci am suñ tubaar fàggu na ko dem jëkk tey ngir fàttali ci biir waxtaan wi rek fii xew-xew yu toll sëriñ bi xam ngeen ne nit ñi séentuwuñ ci moom loolu ndax ñépp war jël di fi andi waaye moom jàpp na ne lu baax moo ci war a jiitu ñépp moo tax lépp lu xew rek dana ca feeñal yéene ngir soññ ci àdduna sépp kenn ku ci ne xam ne sawarte fa moo tax lii fi xewoon itam ba am ci ñu ci ñàkk seen bakkan te xam nañ ne bakkan bu faatu ni mu diise am na ci ñoo xam ne am nañ ci gaañu gaañu. moo tax ci biir loolu itam mu yëkkatiwaat juróom fukki million ngir jàppale ko ñooñu nga xam ne lor nañ ci ngir dugal ko ci biir liggéey bi jàppale ko réew mi jàppale ko ñooñu nga xam ne seen bakkan wàññi ko la ci. di ñaan itam ñëpp roy ko ci ngir xam ne loolu mooy liggéey ci senegal te mooy jàmm réew mi asalaamaaleykum wa rahmatullah